salaamaaleykum salaamaaleykum mbokk internet ñu ngi leen nuyuwaat bu baax a baax di leen ziar di si ñi feebar ma leen mës a fàtte nekk si biir ñëpp peese cap manuel fort fu mu nekk rek maa ngi lay bu baax a baax di jox sa wàccuwaay bu rëy te ñu xale seet si mu jógee si journée daal daal bu nag SBT ñoo seet si ko te bàyyi mu maa ngi lay fay. waaw nuyu waa SBT Média yëpp nuyu waa Jaxaay bi nga xam laa dëkk fii nga ma fekk nii di nuyu sama mafia bi di ko kulukul ñëpp maa ngi leen nuyu képp ku la sant di la gërëm waaw kii wax moom xale la rek waaw yàgg fooy bëre xam nga dëkk ci gox boo xam dañoo bëgg làmb wax dëgg yàlla xam nga doon xale daal bëgg làmb ba tey yàlla def ñu nekk ci arène bi di ko jaayante waaw waaw man maa ngi tudd Papa Siteu waaw waaw la rek du ngéem bi ma fekk si gaal bi du dara waaw dama nekk xale di foo bëre xam nga di tëggandu ay mbapat xam nga di bëre ba yàlla def tey loolu moom ma yàgg a dund la quoi ba tey ji yàlla def ko ci man waaw. man maa ngi dëkkoon Géejawaay fa laa doon nekk di foowante bëre ba ñëw fii jaxaay aussi noonu waaw mbapat man sama coow sax avant arène la woon parce que dama bëre fii mbapat lu yàgg wax dëgg yàlla doon xale di def mbapatu wërale di bëre ma gaay fii xam nga daal ñun daal lu ñu yàgg la daal bëre ci mbapat waaw fii jaxaay laa njëkk a takkee ngemb waaw doon xale bu ndaw waaw ay warga ak sukkar moom bëre naa ko bay bëgg a dee bëre naa sax ba daan ñu duñ ma jox dara walla jël benn moosa rek door ci ay pont jox la ni la ay wa dara apoo la nga yuuxu dem sa gàlle loolu yëpp bëre naa ko wax dëgg yàlla da ngay ree waaw kase bi ma njëkk a fay ci mbapat de ba ma yëg ci sama bopp xanaa loolu sama entraîneur la baara waaw mbapatu arène fee Kër Massar waaw su ma su su ma juumul cinquante mille la ma fayoon maa guy gi guy gi Kër Massar la dëkk waaw man maa ko daan. Hmm. Hmm. côté man man daanaka mbapat tournoi ma bëri yëpp final laay dem.

bu dul moom am na beneen booy bu ñuy wax guy gi moom suñu mbapat àggul sax maag moom waaw bu Kër Massar waaw waaw bu Tivaouane Pël waaw waaw moom fii nii non wax dëgg yàlla gisuma ko gisuma ko awum amul de billaahi bari na ñi ma daan am na ñoo xam ne nañ bëre aw am na ñu ma daal ñoo xam bàyyi nañ bëre ñenn ñi egsee guñ si arène bi waaw leen gis waaw maa leen gis nice waaw bari na am na boo yoo xam ne nii fële guñ mooy ñi ma la wax rek xam nga man fi li ma fi jël ci ay drapeau wala ma am fi si ay ndam mënu ma ko sax compter idi Baye Fall ngi nii toog ñoom xam nañ li may wax bu baax billaahi damaa bëre ba sonn ñun chaque jour amul lundi amul mardi chaque jour dañ daan tëgg mbapat barke yàlla di ko bëree Mhm. waaw sama combat arène moo nekkoon la 5 Habib Lecran moo ko tëggoon. maag caat Ndakaaru. waaw. yéen ñëpp seetaan ngeen combat bi gis ngeen ni mu demee n'est-ce pas. waaw mooy sarax bi rek. <laughs> gis ngeen de bàyyi faale xam nañ loolu idi yow seetaan boo daan sax combat boobu combat boobu da yow seetaan nga ba ñëw ko commentaire boo duggee YouTube xoolal à part sama tur ki ma daan sax doo gis turam barki alxuraani karim nit nitu làmb yëpp man la ñuy jaajëfal <laughs> man nag yàlla dañoo baaxoo leen ñun ñun amuñu ku ñuy bëreel ma ëpp ñu supporter loolu du am ñun amuñu ku ñuy bëreel ma ëpp ñu supporter loolu lu mës a ci àdduna ci làmb ci am barki man combat Ndandi Fall kii bi Dame Sène bi su woon man zéro bi day ñaaw barki yàlla su woon man Habib day yuuxu Habib xam na li may wax bi ma pare daf ma woo téléphone barki Sëñ Bamba Mamadi waxi nopp nu muy nit ku baax wax dëgg yàlla Mamadi Diouf dañuy déggante tul le waaw chaque jour bu defee émission wax dëgg yàlla lu mu xat-xat day tudd sama tur jaar ci waaw wax wax ma lu baax waaw. daw ba daaru man na xam daw moom bu booy soo leen boo tëddoon ba guddi yee leen ci nelaw ni leen papa daw na sax barki sëñ Bamba duñ ko gëm ah damaa nekkul ni kuy daw lool loolu di fi xale la mën ah, loolu li Baye Fall wax léegi mooy sarax bi rek idi barki yàlla waaw làmb ji ku ne gis na ni mu demee bi ma ñëwee confirmation bi bi passé wane na ko waaw idi ma damaa wax de waaw waaw mbas bi moo fi jaaram parce que la 7 août la ñu waroon bëriwaat maag Pape Ndoye xam nga bokkoon naa si waroon ñu njëkk a bëriwaat parce que sama combat bële paase ak bi sa rawantewul deux mois mhm. ma waroon bëriwaat affaire confirmation bi ñëw la 7 août bi ñu ajaat combat bi xam nga combat Ada Fass Tapha Mbeur dafa xoolee yàgg na te journée bi maa ngi ci bokkoon ba nii nii nii dimanche xam nga. Hmm. ma seeti woon ko nga dégg lim la wax nee na lo bi li si nekk lépp moo koy li si mhm. <laughs> mooy li ma la xam waaw seetaan naa ko xam mooy li ma la ci open press bi rek ne làmb moom dafa baaxoo wax bu bu jël amagul moom combat bu taxawee lu ne mun na ko wax xam nga. waaw loolu moom xam na ko dafa am mbër yoo xam ne ay mbëru média lañ quoi waaw man man dox man idi barki sëñ Bamba. non non du ma mbëru média xam nga tax diggante bi combat bi taxawee amul site bu ma woowul pour ñu def ma am moom signature ma bañ barke alxuraani karim ma nekk sama ruq rek di liggéey jàpp sama bopp façon nit bu ne woo na ma dañuy woo maam Thierno ba sonn sa booy bi lu muy na ñëw xanaa lii du làmb kase man leen non dew ma dew ma dew ma toog nekk sama ruq di liggéey ndax rek bañ wax ju bari ji bëgguma ñu jàppee ma comme yenn booy yi ay affaire comédien affaire yooyu nekk ci site yi xam nga. waaw. waaw kooku suma waay la borom saal bi suma waay la course bi fa nekk tamit noonu ñoom ñoo bëggal seen bopp dama fay ñëw di entraîné du ma fay dara waaw entraîné naa fa tuuti rek mais lu ci ëpp <laughs> non parewu ma ko foofu parce que sama père maam Thierno laa ànduloon xam nga moom ma doon yóbbu ci yenn ruq yi xam nga di ma dajji 4 heures du la may yee trois séances laa daan def barke alxuraani karim maam Thierno. waaw gis nga xamul tax ñun moom làmb ñun ñoo ci mel noo xam ne nii musu man musuma bëreeg nit gars yi xam nañ loolu ñu ni maay man tey laay rey waaji tey lañ koy rey rek ngay dégg. waaw man loolu lañ may wax man maa bindoon noonu mais gars yi ñoom ñoo ma xam Baye Fall yi xam nga Pape Ndoye dëgg la champion la waaye di ko ñaanal waa ma dégg combat sax ko ndam yaa ngi dégg waaw. <laughs> ah góob ma ko de ah. yaakaaratu ma ko de ah <laughs> non du non fii gisaatuma fi adversaire am de Pape Ndoye kay li des si dundam maa ngi rek kum ci am daal baax na ah. ma daal boo dëggatee jaxaay sa xam naa day daw wax dëgg yàlla. Ah. Hmm. non du joxante cër sax parce que Pape Ndoye dafa nekk nit koo xam ne nii am na doole mais du appliquer quoi du bëre. waaw trop. wax dëgg yàlla liggéey na man bi mu si meekoo sama supporter yi ñu bari ci kaw ñenn ñi dañuy génn dem seen yoon ñenn ñi découragé billaahi waaw ñeen ñi xam nga rek xam nga ñu la dul seet si entraînement xamuñu lan liggéey par rapport ak jàmbaar yi nii xam nga xam nga supporter yi dañoo bari fu la na li di jugee affaire yooyu noonu ñëw teewal la xam nga am na ñoo xam duñ comprendre xam nga mais jàmbaar yi di ma nga xam dañuy toog tout le temps ñooy nekk ñuy dem entraînement ñuy gis ñoom xam nañ li ma mën ak li ma wul yaa ngi dégg xam nga ñoom xam nañ lu ñu xam toog bañ na ko boo xoolee tribune bi li may bëri yëpp jàmbaar yi ñu parce que xam nañ man may waaw Pape Ndoye nag champion la boo gisee combat bi yàgg sax moom am na doole mais nangul appliqué du bëree waaw. maanaam su ma déggee sax dafa yor kattan xam ne. waaw ko sa kaw. waaw su ma déggee yow ci dooleem daal laa ko daan. waaye bu ne coppat sa tànk. Hmm. loxo bi <coughs> hmm. waaw parce que xam nga tànk boobu noonu jàmbaar yaa ngi nii ma déglu barki baam Bamba ñu ko ëpp capacité foofu ëpp ko doole. billahi damay entraîné loolu sama sama entraîneur may mer ci loolu dana am bàyyi joxe tànk bi. billahi sama tànk fii ba soo mu ma ko joxoon du ma daan billahi wallahi ta su ma ko daaneewul woon noonu sax damay génnaat ci action boobu dem si woon. mais pour ma jeexal làmb moo tax boo xoolee tànk bi man maa ko ko jox. boo xoolee ni mu jëlee tànk bi man maa ko bi ma jeexal combat bi. parce que fii ba suba xam naa li bëggoon làmb jeexee muy ay par avertissement wala mu may waaye dama bañ damay tourné waat damay dévier waaw waaw damay def rotation ñëw tourné waat yooyu yëpp dafa bëggoon ma génn rek ma am benn sortie de libéré bu ko defee ma am benn affectissement affaire mu jeexal foofu làmb ndax dem na ba xam ci biir bëri man maa ko fu entraînement te du ma daan bu dee bëree maa ko gën a màndi xeex bi noonu parce que bi ma woowee ci xeex bi ma xeexee moom dafa wori ku ne gis nga loolu idi idi daa wori idi daa wori idi daa wori du joor yow da doon coppat sa tànk sa tànk daw yor sa loxo waaw parce que loolu yëpp xam-xam bëre la rek parce que suñu kër su baara ak maam Thierno ñoo ñu teg ci aksi xam nga billaay walaay combat bi ñaari yoon dama ko doon contact billaay maam na fajar gi damay contact ba moom géej barke alxuraan ngoon bu jotee aussi maa ngi ñoom Maama Lamine ñoom Vieux Dacia ñoom Jaasi yoole yoole ñu nekkaat ci dañuy contact ba 22h barke alxuraan bu muy ñëw fii xoolal balaa ngay lijjanti say affaire bay jënd reet sa xoola minuit day jot barke alxuraani karim bilaay fan yu combat bi laa jël yëpp ay contact barke sëñ Bamba. léegi mhm. mhm. di ay xale comme yow. Mhm. fi mu toll nii fan nga di déglu sama kilifa maam Thierno ak Baara. bu ne ma awal nii noonu lay aw waaw ku ma làmb booleel daal ma bëree waaw man. xale nga say morom ñu ci làmb ji. dëgg la bàyyil ma baara moom coach la ñëpp xam nañu coach la. dëgg la say ci làmb ji te tungu la teew morom. waaw samay nañ ci làmb ji duñ fi jeex xam nga. bul fi tudd nag Paa. fi nekk di tudd kenn sax man du ma tudd benn mbër. xanaa ñeme wala. parce que nekkuma fi di may benn booy buzz yaa ngi dégg. Eh, ah Idi Idi man Idi yu neex ñu ngi nga leen waaw Idi làmb man ku ma booleel rek ma bëri man ma maa fi rek yaa ngi dégg man du ma laaj kenn bari sëñ Bamba li jàmbaar yi wax ni dëgg la ñoom ñoo ko wax xëy na ñoom ñoo bëgg loolu xam nga waa jàmbaar li ñu wax loolu la ñu wax rek. li ñu wax xanaa ñeme wu. waaw. man lu jàmbaar yi wax rek loolu mooy loolu. man man du ma tudd benn booy Idi yaa ngi dégg man dama fi nekk waaw dama fi nekk sama yoon laa nekk li ma la wax Idi barki yàlla dama fi nekk waaw nekk lu ma fi kenn ñëpp laa fi nekkal xam nga leen ci làmb hmm. hmm. say naataango ñu si làmb waaw tey ji kii seetaan mbokk internet bii seetaan wala commentaire hmm. war nga mën a tudd ñoo xam ne ëllëg si buñ na xam nga man bu ma baree ba pare stade bi yëpp ñu ngi yuux am lu ñuy wax mais man dama noppi jàpp sama bopp xam sama yoon fii la yéen ñi idi yow mii di wax ak man xam nga ñan laa war a bëreel idi waa làmb ji ñuy déglu idi ah man du ma wax ak yenn yéen man du ma wax ak booy tapé di nga xam ne dañuy nekk di la di ñëwte non non man du ma laaj kenn Idi li ma la wax rek moo ci ne <laughs> amul problème waaye man mbër ñemewu ma man loolu ma ci jaaxal man booy ñemewuñ ma waaye kenoo yaa nga booy boo introsé yaa ngi koy wax samay wax muy dof-dof lu naan la ni naan waaye ñun waaw ñun faale wuñ Papa Siteu affaire yooyu di wax yàlla xam na ne boo ko seet woon suba jox ko sama wax du ko jël kooku ngaaw fi nekk nga xam ne sëñ Bam maa nga dem maa nga waaw dëgg man xamuma damaa baaxawul wax idi man waaw man booy waaw dëgg la lii lu mun da ñàkk la waaw waaw jeex na ñun dañuy saxoo sikar nag wàññi wax idi idi waaw waaw dëgg idi idi idi man idi man du ma du ma laaj kenn lépp jàmbaare jàmbaare dégg luñ la wax ka lañ la wax. car rëbës bur ah? sita kuñ si jox ñu ñoom ka lañ la wax ñoom ka lañ la wax waaw buñ ko tëggee jaadu na jaadu na non man amul lu may wax ak ñoom parce que booy koo ci laaj koo ci laaj mu yaakaar ni danga koo waajal wala daa am lu parce que sëñ Bamba laajuma kenn billaahi man maa ngi fi pour ñëpp man maa ngi fi pour ñëpp barki yàlla. ay toog tapet la booy bul wax loolu booy ñaar ñi ku si génn tapet la Siteu bu Ngor ak Franc. Franc moo ban booy. ah non booy miinu ma leen nag parce que man booy mooy loolu. man booy dawuñ sama yaram quoi billaahi waaw. waaw parce que man barki yàlla. man booy tàng yi laa bëgg xam nga du lu tax. billaahi dama bëre ba pare benn nitu làmb woo ma ni ma yow kaay ma wax la mun ma mun ma est ce la ko jël sa combat man leen ma ndax combat bii nga bëri nii booy yi loolu la ñuy bañ kuy dóore la ñuy bañ de kuy bëre di xeex booy bëgguñu loon ah waaw baax na ba keroog ja na. man waaw iri waaw baax na waaw jaanoo koy mujjee kay waaw waaw waaw iri ñun moom lañ fi ne ay xale lañ rek barki sëñ Bamba xam nga gars yi lañ gis fii ci xeex bii di ñëw moo koy raw fuuf barki sëñ Bamba billaahi booy ñemewuñ loolu idi li ma la wax nii kuy bëre di xeex ah man dara ñoom ñoo ko ñoom ñoo ko wax de Idi ñoom ñoo ko wax de man man waxuma ko xam man waxuma ko Idi barki sëñ Bamba ñoom ñoo ko wax. ñoom ñoo ko wax man waxuma ko Idi barki yàlla waxuma ko. man man bi may ñëw ñenn ñu ma taseel ñu ñu naan ma yaa ngi seeti tapet yaa ngi seeti français. ñooñu yàlla <laughs> <laughs> ba seen koñ. carrément li nga wax yaa ngi Idi Idi booy li ñuy xeeñ ni ko barki yàlla. booy bilaay si di bari nii booy dañuy jël micro yi di wax fu leen neex Idi yow xam nga loolu sax di yàq deru mbër billaahi ñun xeebuñu kenn barki yàlla ku ñëw ñu bëree waaye nañu ki ñu bëreel nañu ñeme rek man ku may bëreel la bu ma ñemee baax na Idi amul problème waaw man xam nga ñeme moom moo yombul nag Idi waaw parce que mooy loolu. sa mm-hmm. say morom ci lamb mm-hmm. pour lamb neex pour lamb développer mm-hmm. pour la mu ne la mu demee da ngaa départ am défaite. Mm. Mm. la. sa li ñuy wax chaque jour. Mm. làmb du ak maas dabante la dabante la lu leer. waaw ba nekkuma fi bi taar benn avance man duma booy tànn ay mbër wala di xool ay paa di jéem a laaj ay paa di bëri ñu du ma ñëw ñu idi barki yàlla damay bëgg a rampe bëri samay morom ba kanam lu ma la làmb jox ma jël waaw. Ah. waaw say morom d'accord hmm. da nga ne da ngay rampe pour say morom. waaw say morom li ma mës ñett. samay morom man. yoo xam ne làmb na leen. làmb xam na leen waaw man moom samay naataango bari nañ ci làmb ji. ñoo xam ne na leen. pour ma lim ci ñett. da nga ne yow doo doo lim paa. sa booy bëre paa waxoo ak ñoom limal say morom ñett. idi waaw man idi. idi waaw man du ci tudd kenn idi li ma la wax rek barki sëñ Bamba. non non Idi man du ma du ma du ma tudd benn booy barki yàlla non du question ragal. billaay. kon kon kon garaawul kon garaawul tàggatoo rek comme ñeme woo. tudd say morom. billaay taamu ma kenn Idi mooy li ma la wax rek. billaay. xam nga ñiy seetaan. Ah. mbokk internet yi seetaan. Hmm. partout ñi mu tudd nii jaar du laax ñoom tey jii bu ma ko dugalee boo boo tëkkut mu tudd ma dem monte dugal dañ naan kon kii li muy wax dëggul si moom kon war nga tudd ñett ne tey jii lamb dalay ci benn nañ xaar commentaire lu lamb wax loolu laa wax lamb balaa wax waaw waaw yow idi yow laaj naa la yow ñeen la ma lamb booleel instant yow <laughs> waaw dëgg la yow laay laaj yow nitu làmb nga chaque jour yaa ngi dox ci làmb waaw yow xam nga booy yow laaj ñaan la yow kan la ma làmb boole yow combat jànk bi instant yi ban combat la. waaw. pare na barki sëñ Bamba waaw bu fekkee ñoom ñeme nañ ma nag waaw. sama rob neexul ko wax na ndax ñeme na idi xam nga dama neexu te ñeme xam nga ndax Pape Ndoye Pape Ndoye da nga ko interroger di wax rek yàlla xam nga fekk ne dafa jëfaru maanaam Pape Ndoye ñeme de mais il ferait ko mu def loolu noonu maanaam moom bës la doon wut ci combat bi bokkuñu yoon bi njël man dama ñëw pour doon mbër xam nga. kon moom dafa ñëw bu nekk la. waaw moom booy comédien lañ quoi ñoom ay comédien lañ ñoom ñëpp sa laay wax booy ay mbëru réseaux sociaux lañ barke alxuraani karim mbëru réseaux sociaux yi lan dañuy wër di wax rek man bokkuma ak booy yooyu ay mbëru TikTok ay mbëru TikTok nag ay mbëru TikTok xam nga xam nga ah, ah, xam nañ seen bopp xam nañ seen yow am na am na booy yoo xam ne na booy yoo xam ne am na booy yoo xam ne boo poussé poussé TikTok ñoom ngay jot man booy yooyu du ma bëre sa ak ñoom non du ma bëre idi barki yàlla du ma bëre ñoom non man tudduma ko de man boo du ma bëre ak moom man ak moom bokku ñu saayit sax barki yàlla. non du ma bëre ak moom kooku ko tudd Idi man xaw ma ko sax wóor na yàlla xaw ko. billaay xaw ma ko du ma ah, bëri. waaw bu nekk fii mbër la Ndeye Assa la tudd bu bëggee ñu boole kaal. waaw ah, Laurent moom tamit nee na seen kër. Laurent boo bëggee ñu jox la Ndeye Assa boo jaxaay dégg nga. waaw du ma bëri man maa man maay seen mbër ñoom. ñoom ñëpp laa wax man maay barki yàlla. ñoom ñu nekk seen ginnaaw yëpp man maa seen mbër man lañ fang. billaay. parce que ñoom li ñuy ñoo di ñoom li ñuy ñoo ñoom li ñuy ñoo di ci man la ne barki yàlla li ñu ñëw di yëpp ci man la ne bari sëñ Bamba xam nañ loolu baax maak liiru jaan bu ngor booy kan xaw ma ko de ah booy bi xaw ma ko xaw ma ko xaw ma ko wax dëgg yàlla amul problème man ku ma la am booleel ma bëre idi man tànnu ma boo ko maag booy yi adversaire de ak di wër ku may bëre di wut neex de barki yàlla man lu tàng laa bëgg bàyyi fa àlli loolu la ñuy wër billaay su ma naree wut lu noo idi ma bàyyi làmb barki yàlla waaw. Bada deux waaw xaw ma ko waaye bu ma làmb booleeg moom mu bëre idi barki sëñ Bamba barki yàlla ragaluma loolu man man nekkuma fi pour kenn ñëpp laa fi nekkal. damay bañ ñëw si ay ay yenn mbër yi nekk sa wet la non non booy boobu day ah, ñun ragalun loolu ñun dóore ci dëkk barki yàlla. billaay dañoo dóorante ba ñu toll ñu licence wóor na yàlla idi. billaay idi ñu dañoo dóorante ba jox ñu licence billaay wóor na yàlla. combat wax dëgg yàlla kenn kenn kenn jàppale moom Idi dama lay wax rek dëgg waaw parce que combat dama jëloon avance ñu aj ko xam nga mu doon lu métti fekk defoon naa samay démarches yëpp dugg si àll bi li li may li jënd ñu aj combat bi xam nga ma ñëw waruma dërëm barki Serigne Bamba su ma ñëwee jàmbaar yi ñoo ci jàpp ñooy dajale seen ñaar dërëm seen fukki dërëm jox ma ma dem li jënd ji barki alxuraani karim billaahi demoon naa ba benn instant dama damay tëju sax di nekk di jooy wóor na alxuraani karim mu metti lool mais jàmbaar yi ñoo ma ciy génnee lépp ñoom la waaye seet naa ñëpp koo yaakaar fii mu borom tur fii si dëkk bi seet si naa la barke alxuraani karim mais gisuma kenn waaye waaye li leen wax rek nit moom boo koy jàppale nga ko siy jàppale ba ba muy raam xam nga doo dem ba mu yori tànk di dox di njaam nga ne kaay ma dimbali la non non waaw ñi fi ñu garaam mu taali faal alfa waaw laay ñoo di jàppale xam nga Assane Boubacar Traoré ñoom ñoo ci nekk di ñu dimbali wax dëgg yàlla waaw bu du woon ñoom mu ñaaw wax dëgg yàlla ak suñu grand yi baax yi nekk fii suñu grand lëës waaw Serif suñu père Serif alaaj Bëkkëri gars yi ñoom ñëpp ñëw jàpp ci taxawuñu xam nga lépp ñoom la barki sëñ Bamba ñëw sonn ci lool wax dëgg yàlla waaw ak jigéenu koñ bi ñoom ñëpp ñëw jàpp ci baawuñ kenn ñoom xuja meng ñoom ñëpp suñu mag yu baax yooyu ñoom ñëpp ñëw jàpp ci taxawuñu fu ñu xam dem dugg du ñu nelaw barki alxuraani karim sonn ci lool bu du woon ñoom daal mu ñaaw waaw wax dëgg yàlla idi mhm. mhm. waaw sama kàddu mujj mooy di ñaanal ñëpp jàmm waaw surtout jaxaay gi ma nekk waaw di ñaanal ñëpp jàmm suñu maire yi nga xam ne dañuy ñaan bay jooy xam nga jaxaay de dawal ko du yi barki sëñ Bamba ñoom ñëpp ñëw dooleel ma gis nga open presse fii nu mel xale ndayu koo dajal sa barke yàlla day ñaan boy jooy billaay wallaay taala ñoom ñëpp billaay wallaay xam di sant ñëpp di gërëm ñëpp idi waaw di nuyu ak lu làmb yëpp di leen bëggee ñoom ñëpp tamit waaw di nuyu sama kilifa sama papa maam Thierno ak waa écrit boy sey yëpp di ñaan ñi fa am combat yëpp yàlla may leen ndam xam nga ak di bëggewaat sama jàmbaar yi bu baax di leen wax lépp ñoom la barki yàlla idi lépp ñoom la ñi nii waaw suñu joueurs yi suñu ay sama ay bi maa leen nuyu di leen ñaanal yàlla ñu indil fi coupe waaw bii paa loolu lañ soxla waaw di ñaan yàlla ñu indi coupe suñu président Assane ñu ngi koy ñaanal parce que sëñ Bamba Mbacke gisoo moo fi gis nga jox ñu 5000 pour ñu ataaya moom mooy loolu da ciy jàpp bu baax parce que alxuraan jàmbaar la billahi di bëggee ñëpp di sant ñëpp idi waaw di bëggee waa SBT bu baax a baax a baax di leen bu sit yëpp defee na ñoom mbëri ndaw yi nu sonn parce que lii yombul xam nga nga jógee gox ak gox ñëw seet si mbër bu ndaw koo xam ne nii amagul dara ci làmb du du dara du kase bu baax du dara ngeen ñëw seet si ko jël seen temps def seen émission pour wane ko rek ngir askan wi xàmmee ko loolu dañ leen si sant di leen ci gërëm waaw surtout yow Idi waaw di la sant bu baax di ñaan yàlla mu dëgëral sa taxawaay barke sëñ Bamba waaw di bëggee ñëpp nag. yee maa ngi lay fay gaan. waaye sant yàlla bu wér bi laa. ba nga jógee sa combat ba léegi. waaw mais laaxatu rek gars nekk si lii rek xam nga ruqi rek nekk si entraînement yi xam noonu la demee taw ñu benn yoon ñoo si li ñu war a nekk rek. waaw mais noonu la demee xam nga ñun moom benn lañ ko waa benn deret bi la chaque jour ñooy nekk tout le temps di bokk entraînement di solandoo yëre lépp ñoo koy defandoo kon donc lu waaye xew la rek day fekk day mel ni sa mor day mel ni yaaku moom ko waa bis boobu nekkoon bisu bu baax sama bis la woon bisu jàmbaar yëpp la woon quoi. bisu jaxaay la. bisu jaxaay la woon lépp quoi waaw xamal noonu la demee xam ñun moom bàyyi gars yi dañoo dañoo dañoo bëgg gars yi jël ñu baax a baax te ñun làmb xamal làmb waye waye nii dañoo bëgg làmb cooy làmb waga laa ñu gars yi jox ko. comme ñan làmb waga comme ñan. waaw yenn booy rek nañ ko jox ay yenn booy xam ay genre ay caar rëbës ak ay sita bu ngorog xam yenn booy moom joru mooy tudd mais yenn booy xam ko si làmb booleel day jël sa waaye toog xaar kenn. waaw mooy làmb cooy rek xam nga booy yi nga xam ne dañoo bëri cooy rek wala yenn booy xam dañuy jaay affaire waga ak yooyu képp dañ leen dañ jël booy wala sëñ Bamba si dañu xam ne waaw lu leer laa a tegal nit ñi affaire bàyyi fii de. waaw maa ngi nii nag sama ruq rek gars yi wax mais maa ngi toog xam naa bentoo yàggul dara sama combat léegi mu lii quoi. ba ma nekkoon sama deux combats deux victoire waaw. waaw ñu ngi may adversaire ah, yu bëri ah mais xam nga comme. lii bi la nii instant yii bientôt tuuti sama combat léegi mu taxaw yàggul dara. waaw mooy loolu <laughs> noonu la demee mais dañ koy yaatal léegi si kanam <laughs> noonu la demee nag. waaw noonu la demee nag billaahi waaw gars yi xam ne maama xewle waan noonu la demee mën na sëñ Bamba. waaw bu ñëpp rek di ziaraat ñëpp nag joxaat ñëpp seen wàccuwaay bu baax a baax a baax rawatina nag ñu nekk si biir ñu nekk si biir bu ma leen mës a ñi si biir bàyyi ma kenn kenn. waa 10 waa 21 waa 4 maa ngi leen di bëggee bu baax a baax dañ jox seen wàccuwaay di wax nag képp defe ñu nekk rek maa ngi lay bëggee bu baax di jox sa wàccuwaay yàlla suñu borom may sutura kattan ba ngeen dellu si waat si ñun waaw di bëggee nag Baye Fall ma fekk nii fi ne fan muy Balia 11 Baye Fall yi nekk maa leen di bëggee bu baax a baax di leen ziar di leen jox seen wàccuwaay bu wërëwërë